برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان الحمد لله الحمد لله حق حمده وصلى الله على سيدنا محمد الفاتح القاتم الناصر الهادي وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم ورضي الله عن قطب المكتوم مولانا عبد العباس أحمد التيجان وعن وارث سرهما قطب الأكبر مولانا شيخ الإسلام الهادي إبراهيم يس رضي الله عنه jërëjëfe باي jërëjëfee nga fam jeri jeffe bay waxtan ñu ngi nuyu kep kuñ bokkat jotay bi mo xam goor la wala jigen mag la wala ndaw nuyu l'islam muy assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu ngi beral nuyu wa koñ bi di Liberté 6 di leen ndokkeel ci bés bi di leen gërëm di leen ñaanal yàlla ndax foog ñu gërëm leen ndax yaatal nañ seen taxawaay rafet na yal na yàlla defal leen yéwénu mbir ñu ngi ndokkeel bépp kilifa boo xam ne ñu ngi bokk ak moom jotaay bii moo xam kilifa diina la moo xam kilifa ak aada la di leen ndokkeel di leen tatagal di leen wàccee seen wàccuwaay di leen ñaanal yàlla dëgëral seen taxawaay bi jaay seydina muhammad sallallahu alayhi wa xam naa sëriñ dina ñaanal taalibe shérif waaye taalibe it dina ñaanal sëriñ kon yal na yàlla defal leen yéwénu mbir ci zaahir ci baatin waa maqaama ibrahima liberté 6 ñu ngi leen di ndokkel di ndokkel suñu bokk ñu ngi leen di ndokkel di ndokkel suñu bopp ci bés bi di ko tàmbalee ci ndaw ñi ndaw ñu bëgg yàlla ay góor ak jigéen ndaw ñu dëggu ndaw ñu am pas-pas nampeeku ci ay mag ñu baax ñu am taxawaay ci maqaama Ibrahima ñoo xam ne bi ma leen xamee ba léegi jubbu woo ma leen daan xàmmee de mosuñ ko jemp waxu mosuñ ko wat jempuñ ko it kon ñu leen di ndokkeel ñooñu lay tuddee waa ACAPES du ñoom rek nag du ñoom rek waaye am na ñeneen ñu ñu fa nekkaloon kon ak maas la mas boobu yépp ñu ngi leen di ndokkeel ci bés bi waaye di ndokkeel it mag ñi nga xam ne ñoo leen tette ñoo xam ne amul lu ñuy prouver léegi ci maqaama Ibrahima ñuñ lay tuddee waa treize kon kon xanaa jeex na ah di ndokkeel képp kuy wuyoo maqaam Ibrahima ku teew ak ku wuute ku jege ak ku sori biir réew mi ak bi ci réew di ñaanal yàlla képp ku jàpp ci jotaay bii moo xam ci xam-xam wala am-am wala man-man wala sañ-sañ wala teewaay yàlla dimbale yàlla taxaw yàlla defal leen yéwénu mbir mboole seen Ibrahima Seydi Cissé ne nga may seede ci moom ñun mbaax rek lañ xam ci moom kon mbaax rek lañ mën a seede ci moom muy ku am yàlla muy ku am teggin muy ku bëgg yàlla muy ku dëgg muy ku wóoru Cheikh kure koo xam ne foog na ne Cheikh Touré mën na lu ne xam na lu ne te wallaay Cheikh Touré xamul dara mënul dara <laughs> moo tax ñaar rek lay mébét ci moom yàlla fekk si la ci sa rafet njort ci man walla mu dabaatal la sëriñ piir ndax gis nga bëgg gi ma gis ci moom ak dëggu gi ma gis ci moom bu dajeeg sëriñ piir kenn du gis na waaw Chérif Chérif man nee naa leen ñoom ma magum laa man magum taalibe laa bu sës ci miir bi sax nag bu sës ci miir bi ndax lim xamoon wala lim xam bëriwut mu am bëriwut waaye jox na leen ko nag ci yéene te pays bi avance mbaa arrière waaye taxaw ma amu ci xanaa kon bu magam naxontewut tey xanaa daf leen wax wax ne fu ngeen mën a yokkoo ci rek bismillah du noonu waaw ku laaj nag yow mi jeexal toog ma ne la joom rek dox bi jinne ji def ko feeñ def ay ma manière am man yépp mu di ko xool rek jinne ji def lim xam yëpp dox bi ne tekk rek di ko xool bi mu demee ba jeexal ne ngàmm di ko xool moom it dox bi ne ko ah jàmbaar nga waaye man da nga ma jommi ba pare loolu rek moo ma dal fu waaye bëgg yokkoo demal yóbbaaleel yar ak teggin ak settantal Seydina Aliou karamallahu waccu dafay wax ne buñ xamee dëgg ci nit xamee nit ci dëgg gis nga boo xamee dëgg ci nit bu nit daanoo da ngay daanu yóbbaale de waaw waaye boo xamee nit ci dëkk bu nit wàccee dëgg nga wéy ak dëgg rek bés damay waxtaan ak yaa Ayda Baro mu di ma wax ne ma man daal Barham daf ma yéem ma ne ko ci naka mu ne ma amul xejj ak seen heure bu ne mu ngi joxe ay dog loo ci jublu ñaanal ma xàmme Ibrahima yëpp lii rek loolu mooy mbaax ma ne ko ah, nit ku gindeeku dee ku gindeeku laa wax de ku gindeeku ci boppam gis boppam dëgg-dëgg gis <laughs> noonu rek lay mel noonu rek lay mel kooku njunux du ko fëkk weesu na foofu gannaaw gindeeku am na njunux fëkkatu la l'illusion de la séparation kum gaa su imaam sax du wér laa yuminu ahadukum xataa yuxiba li aqihi maa yuhibu li nafsi kenn ci yéen du gëm fekk li mu bëggal boppam bëggalu ko mbokkam kon bu fekkee ci xëyri wal xëy nee ngay dox kay daloo ci te ñun daaira bii li ma xàmme Ibrahima devise am ñu ngi ko inspiré woo ci mazahir yàlla yi liñ ngéeju mooy nekk benn roo nekk benn jëmm nekk benn xol te sax loolu la bu boobaa nag kon lu ñuy def yëkkatee ndoor tegandoor àndoo bi loolu lay doon mazaahir yi mënuñ tàqale ko mu tazaahir kon nag alhamdulilah nii rek la mën a mel dafa bokk ci ñi nga xam ne mën naa wax ne mbooloo mi yëpp ameel nañ leen njukkal waaw daf fi bëri du moom rek waaye bëri na ci ñoo xam ne mbooloo yëpp ameel nañ leen njukkal waaye yow duma la wax yal na yàlla fay la fayal mbooloo dama lay wax rek ne la yal na yàlla yéwénal sa mbir yéwénal mbiram taalibe yi soppe xarit jotaay bi yépp ndax loolu rek moo ne ci moom moom mooy ñëpp kon nag yaa booy naa Jonn yaayu daara ñu ngi lay ndokkeel ci bés bi sa jëkkër ji nag Dakar gii la juddoo mais daa mel ni Saalum la dëkk man yi muy wax sax man man man ah. <laughs> kon ñu ngi ndokkeel bépp yaayu daara yaayu daara way juru maanaa la ñu ngi leen di ñaanal yàlla sàmm leen sàmm seen njaboot bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jërëjëfee baay ñu ngi sant yàlla beneen yoon yàlla mi nga xam ne moo ñu feeñoo baay tawfiixal ñu ñu bëgg ko nangul ko topp ko Ibrahima Diouf mi ko daan tegtale radiyallahu anhu daf ne ku jàpp wirde ci moom ba mu jox la ci ngëneelam doo perte doo wala kan bokkoo ci ñuy ŋaayoo xaw ma ku jàpp ci moom de képp ku jàpp ci moom loolu bér na la kooku jëmmi njëriñ la ku ñëw jëriñ soxlawul njàq ak mucc ku ñëw rek jëriñu naalal mu naa man xat ataani awalan wa axira yaa axira yaa awala l'éternelle présence yoonam ci passé yoonam ci futur xam nga luy mbiram ici et maintenant wa zamani fi makaani wa makaani fi zamani kooku mooy bàyyi xam yàlla xàmmee yàlla dund yàlla kum dul sa cër nooy def ba doo ñaaw ci xare bi man xaw ma xam nga lu tax xam-xam mooy élimaan jëf te wax mënta ñàkk jëf mënta ñàkk bu ko xam jiituwul bu wax jotee nga wax bu waxul bu jëf jotee yi nga jëf bu jëful yàlla mi xam bind moo wax ne wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun binduma jinne ak nit lu pour ñu jaamu du noonu yalla mi xam mbind mo waxaat ci hadisul kursi ne ta'rifuni qabla an ta'buduni fa in lam ta'rifuni fa kayfa ta'buduni na ngeen ma xam bala ngeen may jamm su ngeen ma xamul naka ngeen may jamm du noonu bàyyi mi degg diina laye biir ñep ndax adiinu nasiha ne man lam yanal mahrifatu rahman ahmaruhu daad mad zamani ku dund ba de xamoo yalla sa dund perte wax ji leer nañ waaye toogul kii wax ji leer nañ waaye toogul xam nga lan mooy wax ju toog barxaama ñas boo yéexoon konoon ñu perte te al loolu mooy wax ju toog suñu wu kan la bàyyi suñu alkuwul kan la bàyyi waaye yàgg nañ feek ñoom te duhuñ si di barxaam kon kuy gindi jaam yi ba digg xewee ku ne di digg moom ba ne xaa am te war a bugg mbooleem ñi ko mos a dikkal bëgg yàlla màng na leen yóbbu ci péyeb yàlla bi weerante nekku ci anam boo xam ne nag jàppandal gi mostaam ci way yi te way ku wasantu tariqa ilal xaqi li kulli muridin was lil xaqi bil xaqi jàppandal bu mosta am fenn loolu la ko yàlla defal Baye Mor Fati Diallo moo daan wax ne barahama ca njëlbeen di abil anbiyaa yi barahama ca mujj di abil awliyaa yi tiijaan alquran nañu topp leen seen diinaay Baye Ibrahima Ibrahima ne tël ñépp ne ko Baye Chérif a nga koy wax walilaahi hujjatul baalixa ñépp ne Baye te ku ne am na Baye alquran nañu inna Ibrahima kaana ummatan qaanitan lillaahi xanifan walam yakun min al mushrikin ibrahima ne tëll ne wal ummatu qasdi fihim an asuqahum ila hadrati barrahim ilahi lii rek la bëgg ci jaam yàlla maa ngi leen yóbbu ci péyeb yàlla bi moo tax da ngay dégg kuy cataayoo kilifaam ne fi ñu jëlee fi ñu jëmee ko gën waaw ah, kooku du ko bàyyi yar du wax loolu ñun dañ naan bàyyi fi ñu jëlee fi ñu andee ko gën ñun loolu la mooy suñu wax ilmul yaqin njaw des na xambin de aynul yaqin njaw des na xambin de xaqul yaqin nag ku la fa yéegee wàccoo naan ku am sëriñ lab ca waylun man yahdillah fa huwa almuhtadi wa man yudil falan tajida lahu waliyan murshida ku jub yàlla moo la jubal jub moom ci loxo yàlla la ne waaye léegi nañ seetantal nag lu fi indi lan biyaawee mursalina yi lan mooy mission awliya yi moo tax ku leen linkaar dajeeg sànjam yàlla li mooy ku yàlla na ma réeral di ku yàlla nar a gindi doo doo doo doo juróom ñoom ku amul sëriñ lab ca wéelu Seydi Mouhamadou Mokhtar Ka yal na yàlla fayal ñu ko ngeen di fay dafay wax mu ne ku bëggut kenn mënu koo jëriñ ku bëggut noo koy jëriñee yàlla sax ne na wala yonent bi ku bëggut a dajeeg yàlla yàlla bëggut a dajeeg yow bëgg mooy cosaan bëgg lu biire la baatin baatin boo gis am na zaahir xam ngeen lan mooy zaahiru bëgg mooy yitte lu la waaye waxati ne bëgg na ko te gisoo yitte ji tegtale ko ne ko wérut wala ñorut kuntu kanzan lam uraf fa ahbabtu an uhrafa ana yitte ana yitte ja fa xalaqtu xalqan qul in kuntum tuhibbuna la fatabiuni yuhbibkumullah Cheikh Tidiane wax na ne yitte doomu aadama not na kaw kon gis nga loo amut xamal ne rek sa bëgg moo ko mateewul rek bi xadri ma tuxiboo loolu dee la bàyyi wax xadru bi sax yitte moo la koy wan kon nag ku jëriñuwut koy yedd en tout cas sa bëgg gi moom daf lay jëriñ xaw ma geneen nag geneen nag gi ci wóor mooy bu yàlla mbëggeelu yàlla boobu moom bàyyi mu ne dana jëriñ boo delloo ci fa ida ahbabtoo kuntuhu waaye sax ma zaala abdi yataqarrabu ilayya bi nawaafilil xayri loolu yitte la bëgg ko lal rek bëgg rek rek kon nag ku yëg ne am na lu xew am na lu xew ku yëgul ne am na lu xew am na lu xew réew mii am na jëmm joo ne wàcc na fi bu ne jàpp loxo nga ne jàpp ci loxo bi su bëggee nga yegg ci yàlla bu ne jàkk su bëggee nga yegg ci yàlla boo ko kan la bàyyi loolu ngeen wax ñi ñi ñi fekkee wax nañ ne soo bëggaan a gis muñal mu jekk ma bul wuté fi muy lajé majjo ana Ibrahima ñass xam nga majjo ak xaalam effacer rek buñu effacer rek mu muñ muñam ndokk yalla lool muy mooy muñam ndokk yalla wuté amatu fi di yëgoo ne ki majjo bi di effacé moom mosta identifier wu ci ko affaire bi lool la c'est que dafa fekk rek waa joo xamul turam soko lajé waye bo démé réew xam ni mu tudd soo ñëwee nga jàll te xam nga làmmiñ du ko tudd waaye borom basira yi xam nañ ne xew yal nañu yàlla bëggal boppam bëgg labal bëgg bëgg des di bëgg muy dëgg ci dëgg dëgg guy dëggal dëgg dëgg nga dëggam la bëgg labal bëgg bëgg des di bëgg muy dëgg ci dëgg dëgg guy dëggal ak dëgg dëgg ji dëggam la fa sawfa yaati laa bi qawmin yuhibbuhum wa yuhibbunahu neex nag yàlla rek inna lillahi xaw ma nag fu ñu nekk fu ñu nekk Ibou Diouf mu ne nii lan mbóot ma duggee néeg bàyyi jëlal jëlal xooxu mango bi def ko zaaq mu rañaan ci dàtt gi dàtt banqaas banqaas car xob doom garab gii ne zëmm fi mu gongee ko ci xoox bii la gis nga xoox bii boo ko bëgg a seet foo koy seet ci doom bi wala doom yi yaa yoan naas kër jawoon ilaa dun bi waaw gis nga ku fi nga ku fi màng nit ñi di leen yóbbu te waxoo leen péyeb yàlla bëgg nga ñu doon jaamu keneen wala leneen bàyyi mu ne lu fi nit bëgg lu fi nit bëgg lu dul yàlla rek dafay mujj nekk jàng loolu wala boo kuy woote na nga mën a waxee làmmiñu ësal ak abant gis nga soo ko mënul jottali bul woote jottali rek te yem ci loolu yàlla ci boppam la lañuy ñuy waaye daf ñuy bàyyi xel bàyyiloo xel toujours ci ñuy tegtal ñu koy bàyyiloo xel de watabix sabila fafiroo allah bàyyi mu ne bàyyi xel inni borom inni yi bàyyi ko xel de kooku moo lay tegtal yàlla inni lakum minhu nazirun mubin borom inni jooju moo lay tegtal waaye bàyyil xel na yàlla bàyyi xel bàyyi xel mazahiri yàlla yi gis nga inni bu jibee ci mazaru sifa nga d'accord iniy jib ci mazaru lismi nga weddi wa man yakfur bil iman faqad habita amaloo hmm? woo fil axirati minal xaasirina laaxira moom xam ngeen kon axyaanu saabita yi ñooy tegtale gis nga boo xoolee ci olu yi da gis ñu kawe leer loolu moo lay wan na la yitte loolu rek lañ la yitte moo leen di topp soo ñëwee ci suuf lii di nga fekk ñu doon ay yawaakit yoo xam ne dañu gindi yaaxootu bayda yaaxootu hamra yaaxootu sawda hmm? ku ci ne indi programme bu majaas bi toxoo yi boo tënkoo ci programme bi gindeeku waaye bu bu la yëf yi leeree nga dellu ci bopp it gis ak des ànd ak jamono bu ne dana am kaamil boo xam ne koy solo lu Ibou Diouf waxoon amirul moominiina nabi feeñ ci réew yi soodaa kon joxoñ na du ratu baydaa bu yonent bi sallallahu wa sallam nabi feeñ na ci réew yi soodaan mu tëb xamraa bi ñëw ne ñëw ci sawdaa bi ba pare ne la borom faasale nay nuyu nga gis xamraa bi gis nga jamono bu ne dana am kaamil woote yi nag bëri na woote yi bëri na waaye gis nga képp kuy woote indil lay weextal ku yàlla nattu ngay di nga tit amoon foo ko wéer gis nga wooteeg boroom jamono mbasam borom xam-xam yi lay doon ak linkarkat yëpp waaye man daal maa ngi ànd ak waa ji doon wax ne man abajada bi moo ma xamal bàyyi moo ma xamal ne man bàyyi mooy suma sëriñ ñu ne ko ci naka mu ne abajada hawa sahataya kalla mën a saha fada xam nga mag ñi xarfu daal duñ ko wax laab rek ba léegi am na ñoo faylu kala mën a sax ñu ne ah mu ne fala ku ne xam sa ñeex si tooy sa cere rek mu jeex noppale la rek waaw nekk ak mbir ajuwul ci fi nga ko bëggee loolu dafay sonal doomu aadama yi nekk ak mbir ajuwul fi nga ko bëggee fi nga ko ngéeju fi ko yàlla def rek la wa fi anfusikum afala xanaa foofu mom daran ko foofu de xanaa daran ko moom foofu moom daraan fa <laughs> waaye nag wax ko njàccaar soko waxe ku bémpén nga xamne day xol te gisut du ko jeriñ dara loolu mo fi indi yanu sam ndox jaar ci digg mandi marté do ci nan mahjub la yalla yi boppam sidi barham way nak ku bémpén ni dama uti ko la taybe rek ah kat yi am nañ de ah soo gisul nooy nooy gisee ndox mi ba di ko naan ah. métti na de lëndam ci kaw lëndam taras xaw na ñooy dee ci neen parce que loolu boo amul ku la taybe sa dund bi day tàkk ci neen ngay dee kon nag yaa ñu xëddoon yaa ñu xeddi si di barham wax bi dafa dafa dipp yi waxu alxuraan trop fi yàlla di misaal jëf yéeféer yi ak njunux wala mu ne أو كظلمات مثال كتي أي أي غندم أو كظلمات في بحر لجي يخشى موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور متنا ممكن مثال كي أي لندم يو خمنا دفا نك تي جيج خوت tiimaat ay niiri lëndëm tiim leen ba boo génnee sa loxo doo ko xala gis yàlla defal leer amee leer gis nga mbir su nekkee penk nga di ko ut sow lu sa yitte kaway kaway loo jàmbar jàmbar doo dajeeg mbir mukk xam nga lu la fekk gën a réer wala gën a réer rek wolof wax mu ne so demé ba xamato fo jëm delu fa nga joggé c'est discutable hmm? ah do do ko xam njunux matul cëslaay loko ko rek du mom parce que ñortu ngay demé inna zanna laa minal xaqi shay'an njort du jël ci dëgg dara lëndam rek gis nga loxo xut bu la ci cër yi loxo loxo mii loxo hmm? xut bu la ci cër yi cër bu soxla woo loxo moo ko koy defal loxo bu soxlaa loxo ni moom moo ko koy defal loxo allahu akbar inna allaha xalaqa adama ala suratihi yàlla bind na aadama ci meloo boppam gis nga doyoon na rek nga xool doomu aadama ni muy sottandekoo ci loxoom xoolal fii ba New York xoolal fii ba Australie xoolal fu la neex xoolal rek doyoon na rek nga xool ni muy sottandekoo ci loxoom rek nga xam ne mooy tëjali bi gën a mat ci tëjali yàlla loolu mooy fekk nag li am mu sottandeku ci ba pare tuddee ko moomeelam capiche liñ war a delloo day am ak leer xam ne moom it moomeel la bu sottee ci loxo keneen hmm? kooku nag la sirum bi réceptif ci mëdadu ahadiya ruuxam ci mëdadu uluhiya xaqalum ci mëdadu rububiya xalbu ci mëdadu zaat kooku mooy jindeeku ci boppam man arafa nafsahu anta rabbuhu da da da ngeen di da ngeen di tamise <laughs> waaw ku sa bopp réer nag nga suux ci lëndëm waskur rabbaka isaa mas isaa masita Abdou Karim Jili dafay wax mu ne moom su ko yàlla àttee ci màndoom dugal ko safara li li muy def mooy tudd yàlla rek di tudd yàlla ñu ne ko jublu ci nan mu ne alaa bi zikrillaahi mooy ko kooku lu mu xam de ji nga salatu faatiha bi mbollem mbollem luy gënal ak ngeen ci tour yi mo ngi ci biir bàyyi mu ne xurufi laxsab yeb ñëw na ci waxon nga ko sax ci maxsab ba wa bi ixtiqaadi annaha min kalaamika alqadim wa fiha al ismu al azam alladi sallayta biha fi azalika alqadim wa lool soxla soxlawul ñu ne la saraxel li soxla soxlawul mbub mi ngay sol soxlawul raawaan bi li lii nga koy neexale ah togg gu sotti la rek jëlal jëriñ nga bëgg koo weccee ak ay kurtu kurtu loolu du nite yi ñuy tuddee lasaraar de waxuma ne baaxul baax na de ak a baax ni ci mën a jaamoo yàlla waaye mi ngi ci mën a jàmboo yàlla ni ci mën a deferee ni ngi ci mën a yàqee ni ngi ci mën a deferoo ni ngi ci mën a yàqoo kenn mën la ko wax am na ñoo xam ne sax moom egguñ ci lasara tarjumaan tarjumaan yi moo leen sànq nangam ku ko def di nga mel ni Zul Qarnayni nga def ko fukki yoon meloo neen nangam ku ko def donkaasi gi nguur comme Souleymane meloo neen bu def lii nit ñi dinañ ñëw comme ni dañ la dëddale nit ñi ba pare lii ku ko def duñ la bokk dara nga am fitna bëgg a def lu la neex da nga dof mbir am benn buur bés mu ñëw ci liggéey naa fi nga bokk yow xam nañ tur sàngam ndax bokk nga ci ñi ko xam mu ne ko waaw bëggoon naa tur bi de mu ne ko awma ci ndigal ah loolu nga may wax mu ne ko awma ci ndigal buur mu jaay ko mbiru buur dem làqati tur yi feneen ñëw ne ko tur yi ma la doon laaj mu ngi nii mu ne ko buur ndax lii dina la jëriñ mu ne ko yow loolu moom du ko lijjanti waa ji ne dag yi garde yi jàppaleen kii dugal ci kaso gi dag yi di ko xool rek mu ne jàppaleen kii dugal ci kaso gi ba muy ñetti yoon nguur bi mer ne dagi yi duggal dugal ci kaso mu xaxataay nguur ne ko yow tal mo ne ko dama lay jangal rek man suma ndigal ndigal mënul dugal fenn mënul fi duggal ci kenn ci kaso mais sa ndigal gis nga loolu loolu la lay jangal ci mbir yi du ko lako jox mu dal askaru tarbiya yi am na xamne ful nañ ko fukki yoon lañu wirda ful na fukki yoon fu mbir yëpp nak noonu la demee te man dama foog ne sax doyut man daal dama foog ne dama ko gëm sax fooguma ko doyut daal xoolal baay nim mu baaxee xoolal li fi indi ni baaxee gis nga ñi ko gën a benn gën ko linkaar dañu géeju woon lool ci mbir yi ñuy tuddee yii dañ cee géeju woon lool ba yegg ci ay tasarufaat ak kusuufaat ak ay yu kenn xam te bàyyi xam na mbiram bàyyi moom jarul kasu da koy xool xam na bàyyi la wala bëtëb kañaan dafa bém du seet lu xar baax kon kay bi nga wàccee ñu xam ne yaa baax kuy xalam di ca jaay moom mu ne xel ab sarab ay naaka misla ndax sa ñaari bët yi mos naa gis ku mel ni man suluki wa jës bi wan ko doomu fuyoon lu ci daloon nag kon ñooñu umpale wuñ ko de problème bi fii la fii la ci xol yi bil qiil wal qaal fala tastaqilu wa bi salaatil faatil qalbi ishqalu laa ilaha illa allah dëgg la goo xam ne dara du ci topp lu dul ci condition lu dul ci condition mooy muhammadu rasulullah gis nga de laa ilaha illallah absolu muhammadu rasulullah relatif absolu muy tëjali bu bàyyeekoo ci yàlla te di yàlla fataaha tëjali zaati bal wa aynuha lépp ci moom lay génnee Ibou Diouf nañu nen bu jaree junne cuuc sa duñ ko xayma siikar leen jëmmi arif mbiram day foor xaal mooy togg maqaama xaal mooy togg maqaama nañ fexe di xam bi jamono bu ne nañ fexe ba bu xaal fay bu xaal fay rek musiba dal yonent bi sallallahu alayhi wax ne na beesal seen ngëm ñun nuñ koy beesalee mu ne wax leen laa ilaha illallah Seydi Mouhamadou Mokhtar nañu moom nañu yegg leen ci yàlla jamono bu ne xanaa gën naa jege gis nga boo nekkee ci centre sa gis-gis dafay leer nañ ci périphérie gis nga ni mbir yi tëddee dëgg-dëgg da koy xam dangay xam ni ngay demee ci mbir yi lenn lu ne da koy mën a wàccee wàccuwaayam jëflanteeg moom ci tolluwaayam xam li am solo li amul solo li jëm kër ak li jëmul kër loolu tawfeex la waaye gis nga boo buddee koo foofu ci guuta ngay tàbbi dootoo xàmmee ci jànj ak joor di nga jàppee mbir lum lum di nga jàppee dawut di nga demee ci mbir noo ci warta demee jamono bu ne njunux dana la ceeñeeral ndox moo xam ne doo ko naan ba xam yéen may dégg gis nga jàngoroy biir bu tëjale ko ci biti ba def ay jeexital nga bëgg koo faj yaakaaroon ci lenn lu fajee ko ci jeexital yi waxuma wër de waaye yow loo jëlati rek safara suñu jur jàngoro la gis nga doomu adam mbooleem lu mu yaakaar ne mën na ko indil ak dal ci dundam bi ak sécurité mën na yëwénal ak dundam doomu adam fàggu na fitna ji gëna bari xolal la fitna ji di gëna bari yow dégg nga bokku yi di gëna wu bu kilim yi seddalit lor yaa ngi tëjale bu ndox mi sédé xol yaangi bax looloo fi ne kenn ku ne intérêt moo ko ñor yoonam ci la ca des yër mbëggeel tumaranke yërmande tumaranke gumba du jiite yoon gumba du jiite yoon jamono bu ne ñu ngi tëgg ay système buñ doxee tuuti rek gis faay waaw jamono système bu nañ tëgg nañ ko gis faay gis ay faay changé waat changé waat changé waat ci jot na parce que fi ñu ko teg moo teguwul masalu lazina ittaxazu min dunillahi awliyaa ka masalil ankaboti hmm? ka masalil ankaboti taxazat baytan wa inna awhanal buyooti la baytul ankaboti law kaanu ya'lamuun système yooyu tëralin yooyu yëpp ay tàggi jargoñ nga rek ngalaw ko fa bàyyi du dem dellu ci yàlla rek mooy saafara mbir mi fii ngay gis parce que problème bi du dara lu ràgg ak xol xol yu ràgg moo indi lii nit ku lal si jaar waxoo ci dara rek wirdu wirdu wirdu wirdu wirdu ba pare ñu foog ne lu ne ngay wax nga ne loo am ci torox tànne loo am ci tiis ak lor yow yàlla sottil ma ko diw ci même si jaalo bi boo boo boo paree ci loolu ne yow yàlla soxla naa ko jox ma loolu rek lay firi xanaa mère de famille sax boo ñëwoon ci moom ne ko yaay xañal kii jox ma wala papa xañal kii di ma jox xanaa mu génn la kër gi nag parce que loolu la xañ ko te jox ma te yenn saa yi shérif yenn saa yi sax ñu ne ko boo ma ko defal ma dem nekk taalibe makiyaabeel ah ndax boo ma ko defal ma dem ci tuur yi ñaan naa ba sonn man kii daal li nga ko def neexuma li nga def daal yow yàlla neexuma waaw ah, dinaa ko li par A ou B yooyu moo fi am lu waral loolu lëndamu xol rànku xol léegi nag lu ñuy def xol boobu cëru biir la moom la yonentu doon wax sallallahu alayhi wa sallam ne lu mbël ci doomu aadama su baaxee lépp baax su bonee lépp cër boobu kat la yàlla wax ne sama asamaan yaana sama suuf yaana xajuma ci mais xaj naa ci xolu jaam bi ma gëm waaye cër boobu junj na la cër boobu bu dalee rek yëpp yéwén te li koy dalal du dara lu zikru tudd yàlla na bi tudd yàlla bu tuddee yàlla rek dal tumaanina mooy la ixsaanul iman fu la jëmee ci muraqaba fu la jëmee ci mushahada fu la jëmee ci maarifatu foofa nag boo gindee ko boo amee tamis rek di gisee mbir yi ni mu tëddee di wàccee mbir yi seen wàccuwaay di jëflanteeg mbir yi ci seen tolluwaay yal na yàlla defal ñu yal na yàlla laabal xol yal na yàlla laabal xol yi yal na laa yàlla laabal xol yi waaye nag gannaaw nen bu jëree junne cuuj sa duñ ko xayma sikar leen jëmmi arif mbiram day ko nañ sàlloo di sikar gis nga lii nii yonent bi wax nañuy beesal suñu iman gi nga loolu daf ñuy dawloo rek mooy ñu rek rëkkee ndax dafa dafa dafa nekk lu doy waar rëkkee lu Ibu Juuf wax gaa ña demoon hadratul qudsi bu leen fàtte yàlla xul walaahu doy nañ xaatir si di barxaan dafay am de lii nag neex na waroon na bët bu set ñu def ko majlisu zikr yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne duñ ay nit duñ dajee di tudd yàlla rek te yàlla tax lu dul ne yàlla jéggal na leen seen bàkkaar waaye du ca yem de seen ñaawteef yi lay jël soppi ko ay baax baax mhm. ma min qawmin ijtamoo yadkuruna allaha azza wa jalla laa yuriduna zalika illa wajhahu illa naadahu munaadin min asamaai an quumu maxburan lakum wa buddilat sayiaatikum xasanaati bëggee bi rek doyoon na waaye suñ jé suñ ñu jéggalee suñ bàkkaar wëlbati suñuy ñaawteef def ko ay baax baax ma ne kon sakkan na barkeel na kon lu mel nii kuy jëf na jëf lu mel nii kon nag mbokk mi wax na ko léegi ci waxu yonent bi dër la ci dëri àjjana ci dëru maanaa kon nag tan xam lu leen kaay baax ma waxaat ko yaa ayuha alladina amanu istajibu lillahi wa li rasuli ida daakum lima yuhyikum dajee tudd yàlla macha allah li ma wax léegi ci danger yooyu ci di di mën a gaar xol lii rek moo ko mën a saafara kon maa ngi leen koy dénk di ko dénk sama bopp nañ sàlloo di tudd yàlla yu ni mel tamit nañ ci di teew maa ngi koy dénk ñëpp di wax it Cissé ne man de su ma sañoon wasifa yi ñu dugal ko ci diggante timis ak gee parce que jóg toog jóg loolu day xaw a dile suñu defatee majlis ñu jiital xadra bi wasifa bi ñu dugal ko ci diggante timis ak gee loolu daal foog naa ne dana baax am sa sëriñ nag di ko jay amul solo <laughs> waaw ñun almudo lañ rek waaw waaye daal bëgg naa leen te bakkan raxu ci yàlla laa leen bëggee yal na yàlla boole dimbale jotaay bi ku fi teew indi aajo dul mooy yàlla rek yal na yàlla faj ko ci barke yonent ci yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam barke Cheikh Naamari Tidiane Chérif radiyallahu anhu barke Baay barke allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim barham saydi gaa yi ñoo doon wax buu sëy bi ma luy buu sëy ñu ne moom la ñuy wax buu sëy bi ma nañ ko wax barham sëy bi te nag sëy bi sëy bi barham laa la indil dégg nga waaw awalu mooy aaxiru sëy bi barham sëy bi ah sëy du xaw mi xaat moom kii moo mën a nekk moo mën a rendre service ñëpp waaw sang nga sang nga sang nga yalla yalla barkel sa mbir bi jaay sayidina muhammad sallallahu Alaihi wasallam yok faaw baña ko ci ñepp sharif kon nak mu ngi lolu ah jëm nañ lu toyal xol yi lu delo nit ñi ci yalla su ko defé برهام باء وراء ألف ثم هاء